yéen ngeen jëf ci euh, taamu bi euh, ci télévision Futurs Médias ñu leen di nuyu bu baax a baax te leen di jox seen wàccuwaay euh, di leen wax rek ne ni ñu koy defee saa su nekk rek dañuy waxtaanee ponk yi nga xamante ne rek am na solo te gën a fës si wàllu actualité moo tax tey ñu tànn li nga xamante ne moo xew fële ca Gendar ca Saint-Louis di nappkat yi nga xamante ne ñoo génn ci mbedd bi di wane seen naqar gannaaw naka la ñu ñàkk renouveler li nga xamante ne moo di licence de pêche yi yéex bi ci am tax na ñu génn ci mbedd bi di wane seen naqar yàq ci naka lu bëri am ay lorange yoo xam ne jural nañ ko askan bi moo tax ci kanam tuuti gannaaw 20 bi ñu dalal fi euh, seen ministre di euh, jëwriñ gi nga xam ne moom lañ dénk wàllu napp gi ak économie maritime di Alioune Ndoye gannaaw 20 bi ñu gën a yaatal ak moom rek ci li nga xamante ne euh, waxtaan yooyu Sénégal sekk ak réewu Mauritanie fan lañ ci toll ngir fexe licence de pêche yooyu réew Sénégal suñu nappkat yi mën ci jot leneen lu am solo it di xibaar yi ak rédaction bi li ci gën a fës ci bés bi dinañ fi am ci kanam tuuti pàcc bu njëkk bi nag ñu jagleel ko suñu mbokk yi nga xamante ne ñu nga fële ca Chine euh, bokk nag euh, ci ñi nga xamante ne ñoo gën a méttile jamono ji ndax ñu ngi féete fële ca Wuhan euh, mu di ay sénégalais yoo xamante ne ñu ngay sàkku ñu indiwaat leen fii ci réew mi ndax gis nañ jafe-jafe ñu nekkee waaye dégg nañu président Macky Sall yëkki ci ay kàddu moo tax nag ñu dalal fii kenn ki nga xamante ne mi ngi bokk ci collectif bi ëmb étudiants sénégalais ya nekk foofu ca Wuhan di élage Hadj Amsatou Koulibaly El Hadj maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay soxna si. di ki ànd ak Daouda Mine Daouda maa ngi lay ziar. maa ngi lay ziar Ajaratu. suñu président suñu carte yi fu tool toll. <laughs> léegi mu ñëw soobee carte yaa ngi ñëw. léegi mu ñëw. jërëjëf alors ñu ñëw elage ci li ma doon wax sànq mu di situation sénégalais yi nekk fële ca Wuhan. Mhm. Euh, yéen nouvelles yi ngeen mujjee am si ñoom lan la. nouvelles yi ñu mujjee am si ñoom maanaam xam nga man euh, dama nekk ci kenn koo xam ni sama frère moo ngi fa. Mhm. donc je suis en contact avec lui chaque instant. lu ñuy dund nag neexul comme ñoom ni koy publier ci internet bi di def ay vidéo tout ñu ngi dund lu metti parce que li ñuy dund loo xam ni mënatoo sax jël sa tànk teg ko sa buntu nekk ils sont restés enfermés pendant trois à quatre jours sans génn parce que boo génnee. Mm. yaa ngi jël risque être contaminé ci virus bi. ba pare moyen de transport dawatul du bus du taxi du train du dara. te defe naa ni boo nekk sa biir nekk tamit war nga am foog nga soxla ravitaillement boo dundee. pour lekk pour lekk voilà c'est ça. te pour ñoom ñu dem jënd lekk dinañ jox deux pour jënd lu ñu lekk te boo ko jëndee amoo oto bu ko transporter. Hmm. maanaam li nga attan rek. loolu nga mën jënd. te xam ñëpp xam nañu li nga attan moom boo ko jëndee defe naa ne loolu du bari maximum bu la téye trois jours si la yem. Hmm. donc chaque trois jours. ñoom dañuy jël risque génn juste pour dem jënd ravitaillement pour mën am lu ñu dundee ton chaque trois jours ñoom ñu ngi jël risque contaminé wu ci virus bi pour juste am lu ñu lekk. alors est-ce que ñoom entre euh, sénégalais yi fa nekk ñoo ngi déggante wala di mën a dimbalante seen biir. ñoo ngi déggante parce que gëwuma ni xëy na ñoom ñëpp bokk même point bi ñu nekk même bu dee ñoo bokk ville. Mm-hmm. bu fekkee ville de ville Wuhan bi am na ñoo xam ne ñoo bokk immeuble am na ñoo xam ne bokkuñu immeuble mais pour vous dire que man information yi ma jot man ci sama frère. ñi ma bokkal immeuble sax dinañ toog maanaam lu tolloog euh, trois à quatre jours duñu gisante. parce que hmm. doo jël sa tànk teg ko sa buntu nekk da ngay tëju sa biir nekk pour réduire risques yi lu ñu mën mooy waxtaan ci réseaux sociaux yi ñu si ñoom entre ñoom xool nu ñuy def jàll information ci Sénégal pour que nguur gi mën see jàpp loolu daal lañ mën mais ñoom sax mu gisante sax mënatuñ ko te ñooy bokk benn immeuble. est-ce ñu ngi jàng. non non instant parce euh, dañuy ne ndax. non instant bi nag instant bi nag jànguñu parce que ñoom dañoo nekkoon ci vacances dafa tombé ñu am vacances un mois quinze jours ñu waroon reprendre d'ici euh, mi février. voilà c'est ça. et leen ci dara ci euh, yooyu noonu cours yi nga xamante ne moo war a door fii ak mi février. non ñoom instant dañoo waxul sa waxi cours parce que dëkk boo xam ni dara doxul kenn génnu du sax quelque supermarchés sax ñooy jaay donc je pense que ñu foofu waxi jàng sax. waroon nga fa xalaat voilà mais gis nañ ni ministre bi nga xamante mooy ministre des affaires étrangères disons euh, ki nga xamante moom moo géré Sénégal de l'extérieur. Mm-hmm. nee na ñoom ñu ngi nekk en contact avec les autorités chinoises pour mm-hmm. au moins jàppale leen ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo nekk foofu. Mm-hmm. yow yaa ngi may wax problème de ravitaillement. est-ce que autorités chinoises yi ak autorités sénégalaises yi lëkkaloo wuñu pour mën leen a defal li nga xamante moom ngeen soxla. Ah. moom lañ soxla foofu. ci li ak information yi may am yi ma sama frère di jot. di ma frère di sama frère di jox. yi may jot chaque matin maa ngi en contact ak moom. ñoom recevoir nañ appui état euh, appui financier. bu état au Sénégal voilà effectivement. Mm. donc à sa ça franchement y a rien d'autre wax dëgg fa yàlla ci information yi ma jot am. waaw à sa ça y a rien amul beneen jàppale non non. Mm. xata defe naa ni xaalis boo xam ni même boo ko jotee a ko dépenser amul njëriñ. Mm. ñoom li ñuy ñaan ak ñuy bëgg ak li ñu bëgg ñun ñu waxal leen ko fii nguur gi jot ci mooy ñu jàppale leen ñu rapatrier leen même bu fekkee dañ leen di mettre en quarantaine ñu mettre leen en quarantaine pendant quatorze jours ou bien vingt et un jours temps bu mu laaj ñu diagnostiqué leen s'ils mais ñoom li ñuy bëgg mooy ñibbisi maa ngi dégg nag am na ku génnoon ci euh, internet bi naan ñaari personne kese ñoo bëgg ñibbisi c'est pas ça réellement du loolu ñoom ñëpp a bëgg ñibbisi ils ont peur ils paniquent parce que defe naa ni nekk ci situation boo xam ni chaque jour mën nga yaa ngi xalaat ni tu peux mourir defe naa ni loolu neexul. mais loolu mais loolu dégg nga président lim ci lim ci jot a mm. répondre ah, parce que président bi nee na mm-hmm. déjà il faut des moyens pour que nga affréter benn mm-hmm. avion te avion spécial lay doon pour que mm-hmm. mu mun dem foofu il faut benn logistique ay militaires yu nga xamante ñoom ñooy accompagner ñi nga xam ñoom ñooy ñëw te bu ñu ñëwee également il faut que ñu mettre leen en quarantaine il faut au moins jumtukaay yu nga xamante ne yaakaar na ni Sénégal amu ko waaw xam nga li mu wax noonu yëpp xam nga man ma dama nekk nit koo xam ni nit lu mu wax rek dama ko ciy rejoindre ba pare. li mu wax noonu moom peut-être loolu moo am. ñu ko contredire wax dëgg fa yàlla mais defe naa ni même nit boo amul moyen. moom bu fekkee état amul moyen bi au moins ñu utiliser suñu coopération. suñu coopération ak yeneen dëkk yi lan lay jëriñ. gis nañ fi libyens yi mauritaniens yi ci avion algériens yi lañ dugg. donc ñun suñu coopération ak français yi ça sert quoi je te pose question. dëgg la France envoyé na trois deux avions. ils ont rapatrié plus de 300 personnes deuxième avion bi il y avait presque pas de français yeneen nationalité ñoo si nekkoon y avait des danois des suédois mais loolu la moo koy waral coopération la entre les autres pays parce que dëkk bi nga xam ni benn nit rek la fa am dëkk bi nga xam ni cinquante personnes la fa am je pense que borom dëkk bi nga xam ni benn personne la fa am mun na wax ki nga xam ni dëkk cinquante personnes moo fa ne yóbbaaleel ma sama benn nit n'est-ce pas donc bu fekkee Mauritaniens yi ak Libyens yi dugg nañ ci oto ci euh, avion wu algériens yi moi je pense que au moins Sénégal tam mën na utiliser je pense que euh, état bi am na pouvoir boobu noonu am na relation boobu noonu pour utiliser loolu noonu pour euh, au moins collaborer avec les autres pays bu fekkee Sénégal amul moyen bi pour au moins rapatrier ces Sénégalais parce qu'ils sont que treize treize personnes def naa ne fu ñu xàcc avion jafewul alors suñu ñëwee ci lenn loo xamante ne am na solo même bu fekkee ni euh, euh, coopération boobu nga wax mais tey da ngeen gis ni état bi daf leen ñàkk a taxaw wala déet parce que boo nee jox nañ leen xaalis te xaalis mënuñu ko jëfandikoo euh, ne tey li président wax rejoindre nga ko ci waaye mënoon na am yeneen piste de solution. ndax da nga jàpp ni taxawul bokk comme il la fallait ñi nga xamante ne mooy ñoo nekk ca Wuhan. Ah, président président sa veut man li ma li mu wax. daal ma gis nga boo fi nekkee di wër-wëral wax ji. wër-wëral wër yow da ngeen am loo bëgg wax. pour autorité yi dégg ko. foofu tamit na euh, mal bi ñu teg ci baaraam. du question de wër-wëral man ma nekk nit koo xam ne je dis les choses telles qu'elles sont sans vexer personne et d'une façon respectueuse. Mm. da may may ma ñëw moo bousculé <laughs> n'est-ce pas voilà président li mu wax franchement ba ma ko déggee daf maa tiital parce que man man président ah dafa jub. est-ce que lii rëccu ko. parce que normalement président warul wax loolu premièrement euh, defe naa ni ñun ñëpp ci ci président lañ ne donc président aar ñu defe naa ni moom mooy première objectif am wala ci objectif principal am ci la war a bokk xam dëkk boo xam ne yow yi nga yaa jiite réew mi jiite plus de 16 millions de personnes te mënoo assurer seen seen survie seen seen seen dund en fait seen sécurité donc ça pose problème quoi franchement. Mm. Euh, lim ça veut dire que affaire bi ça commence à durer Wuhan a été mise en quarantaine depuis euh, le 23 janvier donc ñi ngi actuellement le 5 février. donc oui. ça commence à prendre du temps le bi li nga koy ñaan moo mu jël ko en main ñàkk taxaw bi loolu lay wax ñàkk taxawu la parce que euh, li war mooy rapatrier y' a pas temps à pert amul ñu ngi leen di suivre suivre lan suivre sur quoi. ñoom ñu gën a nekk en contact ñu ñu nekk seen famille ñu nga xam ne chaque jour on est en contact avec eux suivre suivre ñu ngi leen suivre de près ça dire quoi. est-ce que est-ce que ñoom ñi nekk foofu am nañu peut-être euh, relation wala. Euh, consulat bu fa nekk mën leen jege euh, pour ñu xam ni kat ah ñii mën nañu xam ci yan situation lañ nekk mën a sax a dalal seen xel bañ a rek ci ñoom xam nga sur le moom foo nekk ñu ne la fii moom réew mi ñu si bëri ñu ngi ñàkk seen bakkan ndax virus bi fi nekk mhm. au moins mu am kilifa yoo xamante ne rapproché wu nañu ak ñoom foofu fa nekk mhm. ngir dalal seen xel ci nañu nekkee bon boo xamee bu fekk gi nga Chine ñoom dañu am comme yeneen dëkk yëpp dañuy am par exemple association association par exemple des sénégalais wala des autres nationalités ñoom seen bopp ñoom dañoo am seen seen association des sénégalais de la Chine ak association étudiants yi aussi. Mm. comprendre léegi ñoom at association bi dañoo am par exemple seen porte parole xam nga léegi porte parole boobu noonu il paraît que d'après les informations que j'ai reçues de mon frère mu ngi en contact avec le secrétaire d'État Moïse Sarr. d'accord ah, voilà mais mais président association moom mi ngi mu ngi Beijing à Pékin xam nga Pékin ak Wuhan dañu xaw a sori. Hmm. waaw waaw ça c'est une chose mais dama ne. ñi représenté ki ça ko dire que ki représenté étudiants yi nekk Wuhan. Hmm. ci boppam. Hmm. moom mooy wax ak ki ki nekk Beijing. ki nekk Beijing di wax ak Moïse. Euh, ok le secrétaire d'État voilà voilà. Moïse Sarr. pas mais bon jusqu'à présent amul wax ju leer. ay c'est-à-dire rek. affaire bi y' a pas de temps à perdre ce des vies qui sont en jeu réaction la ñu soxla. du la amul wax ju leer lan la ko wax. wax ju leer état bi ma jox leen exemple. bu hmm. récent hier parents yi ñu ngi woon chez Moïse Sarr la proposé bon on de trouver on va par exemple di leen nemmeeku nemmeeku lan lu ñuy nemmeeku fii nit ñi lañ soxla amul nemmeeku. ay dinaa woo parents yi par deux fois par semaine di dalal seen xel lan dalal xel. ñu hmm. les autres pays rapatriés yow nga ne yow doo rapatrié moom profu frère ki mu bokkal chambre d'université mauritanien la barki démb la dem ah, am na ay xaritu coréen nga xam ne ils sont ils sont partis a six jours je xam neexul nga toog ñëpp di dem. Hmm. yow nga toog. Hmm. te defe naa ni ñi ñu rapatrié ëpp ñu moyen Sénégal Mauritanie. moom defe naa ne ñu duñu ay politiciens de waaye ñu ngi suivre information yi Mauritanie fu mu mënee rapatrier ay citoyens defe naa ne Sénégal war na ko mën pourtant Mauritanie il paraît que utiliser wul ses moyens mais ci avion algérien yi lañ dugg pourquoi pas Sénégal utiliser ses ses Sénégal utiliser ses ses coopérations mais pas dire amuñu moyen juste toog faut essayer solution bu waxoon nag ñu ngi jëm trouver solution nag alors là ñun nañ toog xaar au moins d'ici quelque temps mais il n'a rien dit disent que l'État n'a pas les moyens et ça ça ne suffit pas franchement. alors démarche ban ngeen ngeen ngeen nar def parce que ci euh, la ci topp ci question bi moo tax ma ma ma jëm foofu euh, wax nañ leen li nga xamante ne mooy la situation actuelle lan ngeen nar a def yéen à votre niveau. waaw daa ñun à notre niveau depuis le début génnuñu on essaie juste de on essaie juste de faire passer le message di xaar ba mu yegg si président xool mu réagir président lënd la réagir. parent yi def collectif mardi dem ci secrétaire d'État n'est-ce pas aujourd'hui mercredi tey ce matin amoon na conférence de presse mm. Amnesty mm. International conférence mm. de presse je pense que ñëpp gis nañ ko jàll na ci internet bi ñun léegi nag bu réaction bu amee dañuy xaar réponse état bi balaa ñoo defaat leneen parce que on bëgguñu def mi en fait bëgguñu embrouiller wu par ci par là parce que panique fajul dara. Mhm. réagir lañ mën xool seen réaction. Mhm. d'accord alors li tax ma ñëw foofu noonu dafa am solo euh, bu ñu génnee émotionnel bi. Mhm. wax ci volet rationnel. ndax ñu bari loolu la ñuy wax euh, situation am na. président wax nañu ni ni mbir yi tëddee. Mhm. yéen ngeen ne coûte ko coûte da ngeen bëgg ñu rapatrier. Mhm. te moom ci li mu wax dañu mën ko ci jàpp te mooy la personne la plus euh, indiquée pour wax nit ñi mën a jàpp. Mhm. mooy ne liñ leen war a euh, yore cadre bi. neew fi ndax yéen tamit bëggul leen lor réew mi indi ñëpp mettre tout le monde. ci situation boo xamante ne risque bi finalement indi woo leen solution problème ngeen di yokk. d'accord xam nga en parlant de ça y a plus de risque xam nga plus de risque dès l'instant où en ce moment même may wax ak yow nii les Chinois sont en passer à l'aéroport mu risque ëppul loolu il vérifie seulement leur température mais ça ne suffit pas le virus boo xam ne dina nekk sa yaram pendant quatorze jours sans que tu le saches hmm. kon loolu ay vérifier température yu chinois yi dugg loolu moom du solution li ma wax sànq dafa leer boo leen indee mettre leen en quarantaine demal nga amul Sénégal amul moyen utiliser des relations pour avoir des des des des des des moyens médicaux yoo xam ni dañ leen mën a diagnostiquer mettre en quarantaine nga xam duñu gisee kenn pendant vingt et un jours ñu ñu saytu leen. def naa loolu bu ñu ko defee duñu mettre en danger population bi te dinañ xam effectivement euh, s'ils ont le virus ou pas pour mën a xam après lan la ñuy nan la ñuy procéder mais bu ñuy bu ñuy wax ay waxu gàllankoor population bi. Hmm. nañu bloqué chinois yi dugg ci aéroport ba pare. waaw hmm. damay rebondir rek ci. Euh, aaram lu mu wax sànq. que ni yéen am na lu ngeen xamante moom ngeen bëgg. mais président wax na li muy wax ba pare il a été clair que ni moom fu mu toll nii mënul rapatrier. mais yéen ñi ban solution ngeen amaat après loolu pour def leneen lu nga xamante ne di ngeen poussé. waaw mooy li ma wax ba président waxee lundi. dañoo génn mardi. Hmm. ah dem ci ñi nga xam ni ñoo nekk ci nguur gi. jusqu'à 23h le collectif des parents des étudiants. non loolu dégg nañ ko. voilà ñu ngi woon en en en réunion avec le secrétaire d'État mais amuñu fa dara lu leer lu dul s'il vous plaît bu leen def conférence de presse bi pour lan. conférence de presse mën nañu fa bañ a yegg bu président waxoon li mu wax te président li mu wax dafa nangu dafa dafa neexul dégg en fait. dëgg fa yàlla. man li may wax plan d' action laay wax. laa lay wax ni plan d' action. Mm-hmm. instant bi def nañ conférence de presse. Mm-hmm. information ñi ngi jàll mi ngi ci net bi. Mm-hmm. ñoo ngi nii télé. moo ngi jàll. dañuy xaaraat réaction am. après nag ñu xoolaat leneen lu ñuy def mais mënuñu ñëw mënoo teg plan A plan B plan C te xamoo waa ji lan la ciy teg après. est ce que faut il faut être organisé en fait. au delà de collectif bi nga xamante ne def nañ ko te parents d'élèves ndax jàppoo leen ni euh, mun ngeen sukkandiku. ci ay nit yoo xam ne ñu ngi fii ci kër gi. Mhm. ci dëkk bi pardon mën a jàpp ci xeex bi ngeen di def def ko de manière structurée. Mhm. egg foo xamante ne xëy na yéen information mu ngi jàll te jotoo leen ko. Mhm. ndax bu fekkee li ngay wax da ngay rek également ci la ngay gis ci réseaux sociaux yi. ah ci yeneen ak yeneen ñoom am nañu voix officielle yoo xamante ne mën nañ ci jot info te ñun citoyen lambda yi duñ ko am. donc ndax jotul ngeen rapproché wu. si ay nit wala ay kuréel yoo xamante ne mën nañu jàpp ci xeex bi mu bañ a nekk loo xamante ne rek Euh, day mel ni benn groupuscule moo koy moo koy coow waaye bëriwul doole loolu. d'accord ñoo ngi def lu mu mën fu connaissance woo connaissance am ñu ngi koy jéem a lijjanti loolu daal lañ mën mais on pas fait autre chose ça veut dire que problème dafa nekk problème mu loo xam ne état rek moo ko mën a résoudre bu fekkoon ay moyens wu rapatrier sa sa sa sa frère wala sa sœur affaire yooyu noonu loolu defe naa ne ku yóbbu sa doom foofu mu nga ko indiwaat. donc dafa nekk situation boobu état rek moo mën a réagir te ñun en tant que citoyen lambda ñun euh, mënuñu lu dul par exemple. ñëw ci yéen télévision yi télé yi euh, rajo yi ak internet yi juste pour faire passer notre message mais bu ñu bu ñu jotoon ci par exemple comme ni nga wax noonu ñi nga xam ne ñoo gën a mën a euh, jàllale information bi dañ koy def mais amuñu ko dañoo fu ñu tudd fu fu connaissance jóge nag ñu ngi koy jéem a euh, utiliser pour jéem yegg si yegg si bii boobu. incha allah mm. ah, beneen beneen solution sànq da nga wax association. Mm. est-ce que au niveau au niveau de la Chine association yi nga xam ne association sénégalaise bi fa nekk. Mm. mënul discuter ak yeneen association yi. pour ñu mën a profiter ci rapatriement yi parce que sànq da nga ko wax sànq. Euh, ñi nga xamante ne ay tunisiens lay ay libyens. ay marocains ak ay mauritaniens yëpp. benn vol lañ jël muy vol algérien. et ñooñu association yi seen bopp ñoom ñoo ko réglé depuis foofu en Chine. association ou bien non c'est c'est c'est l'État qui a affrété. est-ce que notre État a affrété. non non déggoo benn État moo affrété. waaw ah. mais ñaata nationalité la indi. voilà xam nga xam nga xam nga xam nga algérien. Hmm. du tëb rek ñu doon yóbbaale libyen. Hmm. te je pense que ni gis nga association. c'est hmm. pas quelque chose de formel. comme gouvernement. c'est pas la même chose. donc association en tant qu'association. mënul ñëw di bëgg bëgg bëgg dugg ci avion jàmbur. loolu bu amee ça veut dire que y a y a eu un accord entre les deux gouvernements. association kase non je pense que mënul mënoo jóge ci ak sa avion jël dugg ci avion beneen nationalité ak ak lan ak ay waxtaan association est-ce que le ce que ñu nekk ci kaw est-ce qu'ils sont d'accord donc affaire problème état la bu doon lu ñu mën résoudre du ñu nekk si fii gouvernement mosu mën jàpp donc Macky Sall na si teg loxo bëgg naa xam également euh, ni ngeen di euh, communiquer ak ak ñoom ñi fa nekk. dafa am solo parce que am na nu ngeen di waxee ak ñoom du ngeen leen dimbali da ngeen leen di gën a tiital. Euh, que que que dalal seen xel. c'est-à-dire posture bi ngeen nekk mooy ñun lii lañ bëgg suñ ko amul rek dañuy continuer ci ci ci plan d'action bi nga xam ne lii la bu fekkee loolu ngeen leen di wax ne leen ah ñun tamit dinañ continuer fii à notre di xeex rek ba keroog ñu am lu ñu bëgg ñoom ñu nekk dans euh, une position d'attente. alors que yéen xam ngeen ni fii nii am na blocage. ndax amul beneen méthode boo xamante ne war ngeen ko mën a employé dalal xelu ñooñu en attendant ngeen di négocier mu bañ a nekk loo xam ni dañ koy gis ci toile bi. Mhm. après ñoom ñu gis ko xam ni seen situation dafay gën a critique ñu gën a panique. gis nga ñoom seen bopp ñoom seen bopp ñu lay laaj des résultats en direct ñoom instant yii waxuñu waxi panique ak yooyu noonu de génn foofu lañ bëgg. saa gis xam nga dafa am da nga situation na fu muy toll am yu xam ne ay détails ñu ngi dalal lu ñu mën ñoom seen bopp man moom frère laa la wax quand il me parle il est plus serein que moi alors que moom moo nekk ci situation donc dalal xel am fa place parce que ñun dañuy ñoo ngi dalal seen xel di jéem a gérer le dégg nga leen bu yàgg mais ñun ñoo gën a inquiété ko ñoom donc ñoom kay ñoo war a dalal suñu xel mais pas ñun. Ah, mettre nañ leen en quarantaine mais euh, dëkk bi bokk ville bi te mais bàyyiwuñ leen noonu ndax gouvernement chinois aussi euh, mu ngi def le maximum defoor ak yeneen réew partenaires yi nga xam ne ñu ngi ciy jéem a jàpp yoon yónnee xaalis ngir taxawu leen c'est-à-dire ñooñ tamit nekkuñu ci situation euh, boo xamante ni tey dañ leen bàyyi noonu kenn kenn kenn dimbaliwu leen bon y a des universités yoo xam ne dafa dafa dafa am dafa ay différence am na ay am na ay universités yoo xam ni seen campus duñ foofu la ñuy servir lekk. 8 hmm. heures petit déjeuner 11 heures midi foofu mooy seen heure añ ñu añ 18 ñu reer ñu di leen reer mais man sama frère fi mu nekk y' a pas de ça. yaa koy defal sa bopp lépp yaa koy defal sa bopp. yaay génn yaay jënd yaay ñu yaay dugg ci frigo yaay coow. te biir université la nekk. si bien sûr ci biir université bi la nekk. et il mange 2 kilomètres marche 2 kilomètres pour acheter de quoi mage ak ay risques. yaa ngi marché deux kilomètres pour lekk alors que mun nga ci contaminer virus bi. mais mu lor la. mais loolu est-ce que yegg nañ ko le autorités de l'ambassade yi nga xamante ne ñu ngi foofu pour que ñu mun leen jàppale ci loolu parce que y a une bu nekk foofu quand même. waaw am na ambassade bu nekk gis nga gis nga hmm. a tuuti. gis nga xam nga juste un petit exemple ah. boo jugee dakaar dem Mbao il que dans les services publicitaires c'est quinze minutes de voiture. Hmm. avant am na benn université bu ñuy xubay avant ñu koy euh, tëj di leen jox lekk huit heures onze heures et dix ñoom dañ doon génn pour dem uti lekk y a un ami de mon frère qui a marché loo xam ne taxi quinze minutes la koy daw ça a fait au moins trente juste pour avoir de quoi manger est-ce que ñoo ñu ngi ci jàmm après il se permet taxaw ci télé bi ne non on le soutient appui financière boo ñu ngi ci jàmm ba tey kenn kenn amagul jàngoro bi du ñoom jàngoro bi ñaanuñu ko yàlla. Hmm. faut les évacuer avant que ñëw euh, ci euh, leneen loo xamante ne euh, dina am solo sa frère depuis kañ la fa nekk. depuis avril la ma deux ans la nekk foofu. ak ñi fa nekkal yëpp ñoo bokkandoo nañu demee wala yàgg nañu xamante wala déet. non je ne pas trop parce que moom bon franchement bourse la demee. pour état du Sénégal franchement donc les autres moom xaw ma amoon na y avait d'autres yoo xam ne ñoom ñoo àndoon demee bourse mais je sais pas si ñoom ñoo bokk même euh, même lieu yu ñu nekk en parce que après gars yi ñu tas ku nekk dem si université. démb am na élément bu jàll si euh, journal TFM euh, benn xale bu jigéen boo xamante ni mi woon Chine. ñibbisi ay parents am jàppale mu ñëw. Mm-hmm. bokkul ne ville boobu la nekk mais au moins indi nañ ko. Mm-hmm. peut que situation yi euh, du benn. Mm-hmm. et que moment bii nii. li gën a wóor mm-hmm. mooy ñooñu ñu xool d'abord mm-hmm. condition ya ñu nekkee mm-hmm. ndax mën nañ leen dimbali avant ñuy wax évacuation ndax li nga wax ne euh, diggante wuti lekk ak ñëwaat deux kilomètres mun nga ci contracter virus bi kooku tamit bu jógee euh, ville ba mu nekk war a dem ba aéroport pour ñibbisi mën na ci contracter tamit virus bi bul bul jaawale bul mooy kooku noonu ngeen wax Wuhan la dëkkoon c'est vrai d'après les information que j'ai reçues de mon frère dafa demoon Malaisie pour vacances ba mu ñibbisee à Guangzhou Escale gars yi informé nañu ko ni dañuy tëj Wuhan que mu mënatul dugg. Mm. il était déjà à la déjà à l'aéroport elle a elle a appelé Sénégal virus bi mu ngi ci Chine pratiquement dans beaucoup de mais fi mu ëppee mooy Wuhan. fa la fa muy épicentre bi en fait fa la cas yi gën a graawee ñeneen ñi pratiquement ñi ngi dund si jàmma ah, même si ils sont Chine li si toll ak ay Beijing ak ay yeneen yeneen dëkk donc bul bul bul comparer cas yi nga xam ni kooku ci épicentre bi la nekk ak yi nga xam ni euh, ñeneen ñi ñu ngi si yeneen ville je fais la comparaison xaw ma ndax xam nga le sens de ma li ma wax dama ne. Mhm. ñoom ñaar xëy na bokkuñu situation. Mhm. am na sénégalais yoo xam ni ñu ngi dugg si si réew mi. te mhm. jóge foofu. mais bokkuñu ville bi ñu nekk. mais ñooñu nga xamante ne nee nga yow bu ñu jógee di wëri lekk. 2 kilomètres la ñuy dox. te mën nañu risquer contracter virus bi. kooku ngay jëlee fa mu nekk bugg ko yóbbu aéroport dem ne la kooku tamit mën na contracter virus bi ci distance boobu. est-ce que jatul foofu noonu ngeen xool. que font les autorités mhm. pour fexe ñooñu ñu teg leen ci situation boo xam ni tey du ñu feebar mhm. dañuy dund normal mhm. ba keroog ñuy am benn voie bu leen permettre ñu indi leen ñu doogay ne ah voie bi sécuriser nañ leen ci jàll mais nii nii ci ci ci euh, wax ji am coow li bëri ñu ne ok dinañ leen indi indi leen loraale leen loolu laay wax ma ne est-ce que paramètres yooyu tamit du ngeen ko bàyyi xel donc xam nga yooyu la moo tax jëluñu ko trop trop trop trop trop trop comme important parce que comment il faut juste te dire comment les autres pays ont fait c'est très simple dégg lu la sama frère ki mu bokkal chambre c'est un Mauritanien. barki démb la dem nan lañ def ba yegg aéroport mais nañ def les autres comme ça. très bien dinañ ñëwaat euh, si moom si kanam euh, El Hadj Amsatou yi ñu dem seetaan publicité. Cheikh Diop euh, ci euh, xibaar yi ñu ñëwaat euh, ci suñu gan di El Hadj Amsatou Coulibaly nekk membre ci collectif de sénégalais des étudiants sénégalais de Wuhan sànq nag ñu ngi doon ñëw ci conditions yi nga xamante ne ñu ko dégg nañ fa nekkee dégg nañ léegi le ministre de la santé di Abdoulaye Diouf yi yëkki ay kàddu ngir dalal xel yi la mu wax doy na leen. bon franchement <laughs> c'est même pas regardé dëgg fa yàlla. dalal xel ci boppam. da ngay mere kilifa yi ba doo leen non pas mere man je suis naturellement comme ça man info Sénégal du ma ko suivre. déet waay. non si. nga bëgg après jàllale sa info. bien sûr man boobu man parce que di ce que ce qui leur intéresse. Mhm. waaw man li man tamit li ma intéressé laa seetaan. ci li mu ci li mu wax lan nga koy tontu. li mu wax man dégguma ko parce que j'étais maa ngi ci biti di jël air franchement. tey lan ngay jox comme message autorité yi. autorité yi bon tout d'abord dama bëggoon souligner benn affaire sans que j'ai un peu loupé benn phase bi ma nee euh, sa du ko yóbbu foofu ma ne la bourse moo fa yóbbu bourse moo fa yóbbu il cinq mois mais la a il ba fait un an et demi boo xam ni il y avait mon qui payait pour lui. waaw mais après ça dafa def langue après mu ñëw après état mu ne ko bourse depuis juste après coupe d'Afrique bi en fait. d'accord voilà donc autorité yi autorité yi dañ leen wax mooy bon je pense que message bi jàll na ba pare ils doivent juste se mettre une chose dans leur conscience que lu fa dal sénégalais yi ñaanuñu ko yàlla. Hmm. ce sera de leur faute parce que mën nañu réagir donc nañ ko def. amuñu moyen de réponse ñu utiliser relation am. très bien c'est tout. merci merci beaucoup El Hadj Amsatou Coulibaly. Euh,